Boki salam alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu ñu ngi dellu siwaat nag tey ak si seen euh, émission bu mag bi le grand débat xam ngeen ni fan yi yëpp daanaka euh, ngi nekkoon ci pause euh, ndax xew-xew yu bari amun ci réew mi tey nag ñu dalal ndanan bo xam ni daanaka mën na wax ni c'est un responsable politique nit la ko xam ni suñu waxee turam kenn ku nekk dina am fu sa xel dem loolu yëpp daan ci ñëw mu gën nit la ko xamni njambur njambur la nak bu ñu waxee njàmbur njàmbur xam ngeen ni réew mi euh, boo tuddee njàmbur rek tudd nga Sénégal ndax mooy xolu Sénégal muy kenn koo xam ne tamit soo ko waxee nga tudd turam xel yu bari dina dem ci li nga xam ni mooy lu mel na football wala lu mel na làmb waaye daan ci gën a ñëw mu gën a leeral. man sénégalais la buy liggéey pour sama réew di jàppale le président Macky Sall mi fi yàlla teg pour mu defar réew mi. donc ku bëgg sa réew war nga ko mën a ñaanal wala nga jàppale ko pour réew mi jëm ca kanam. li ñu bëggoon xam mooy Gaston bu ñu ko waxee xel yëpp day dem ci làmb à moment dégg nañu Gaston ci làmb ji mu jékki-jékki ñu ne bàyyi na ñu jékki-jékki indiwaat Gaston mu ñëwaat ci làmb ji ñu jékki-jékki ni bàyyi na ba deux à trois de reprises léegi ana lan mooy Gaston ak làmb ji lu xew. Euh, dara xewul làmb ji kenn mënu ko tudd ca tuddoo moom. nak euh, modestie à part def naa ci li ma ci waroon def lepp je pense que mënatuma ci def sax lu raw lolou donc euh, muy mbir mu metti ndax lamb dafa doy war metti na ci xol yi ànduñu c'est pas un milieu sain c'est un milieu malsain euh, Lambu natu yalla la mom lay faral di wax yalla lay natu rek natu la lambu parce que xam nga jël alal jo xamni ken xamu mu tollu ma nga ci liggey lo ñu bari manon ci ubbi lu bari jël ko yalla natu la nga duggal ko ci làmb mu wóoru la da ngay perte ay lorange di la ci fek nga nga ci insister lolu natu yalla rek ko man man làmb ba ko yu ma masaana wax ni làmb ji def nuy gaañ ñu ne Gaston dafa soxor dafa bañ ku dugg ci lamb ji mais ba ma bàyyee ñoom ñëpp xam na ni li ma leen wax dëgg la donc euh, ma bàyyi woon ba daaw ma dellu si bi Macky bi le président Macky Sall di defar di kii campagne am campagne électorale ma ni man li ma gën a man mooy pour jàppale Macky Sall mooy tëgg benn combat boo xam ne avant campagne bi ubbi nga xam ni c'est un c'est un support de communication bu extraordinaire daanu ci mën def suñu communication man ci def lu nekk c'était une réussite totale xam nga mën nañ ci jàppale le président Macky Sall fekk muy dugg ci campagne Gaston ku ko xam làmb la ko xam xam nga yow bi ngay nekk ci làmb boobu làmb daanaka demewul woon noonu nga nekk ci ba ñu dégg ci ay millions xëy na am na ci benn moment boo xam ne nañ ko mais fekk na mbëri révolté wu woon toog ni ñoom bu ñuy sëggati ku ci mel ne Tyson ñu wax indi na ay millions yu bëree bëri bëri ci biir làmb ji xam nga boobu nit ñi doon wax naan Gaston de xëy na maanaam dañ ko soxore wala dara li nga li nga doon daj ci làmb mais gis nañ làmb fi mu la indi n'est-ce pas am na foo indi làmb waaye gis nañ làmb lum la apporté loo xam ni xëy na loola tamit ñi toppoon sa gannaaw amoon nañu bëgg bëgg bëgg boo xam ne tamit fi nga fi nga agsi bëggoon nañ fa agsi xëy na est-ce du loolu moo indi jafe jafe-jafe nga xam ne tey amoon nga ko ci làmb ba nga génnoon ci. xam nga li la nax nii ba nga wax lii. moo nax ñi wër làmb ci yëpp man làmb indiwuma fenn làmb daf maa wàññee daf maa delloo ginnaaw man xëy na yokk na tur et tout mais man làmb bi may bi may dugg ci làmb man commerçant la boutique bi gën a rëy ci Dakar maa ko yoroon ci Ponti doon jaay yére ñëpp xamoon ma it ñëpp nag ma siiw lool làmb ji nag xam naa ne xam nga milieu la boo xam ni day gën a yokk siiw teg yooyu mais li ma liggéeyoon lépp làmba tax ma jaay sama magasin boobu dugal ko ci làmba tax ma jaay kër dugal ko ci loolu lépp ay loraange la keroog bi may bàyyi làmb maa ngi woon ci boru 700 million xam nga ci télévision ci site lay waxee du ma waxantu yooyu wax naa ko ñëpp dégg nañu ko ak ay problème bari ñi ci làmb ji ma nekkandoon ceeg ñoom tey ku ci ñu presque ana petit mbay làmb ko lor nit ku baax koo xam ni ku ne dimbali na la fi mais làmb nattu jàppoon ko mooy tam li ni ko lay kenn gënu ko ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jële fi nekk mais li ëpp làmb la làmb mooy làmb mooy milieu boo xam ne ku ci nekk suñ la gisee nga solo sax ñu ni làmb jee la solal or que lamb jang lay ku ci xamul dara nak ba ma ci daan wax dañuy wax ni garçon dafa soxor effectivement lolou lay nuru ndax dañuy defe ni mais lamb tay gisuma ku mu defar promoteur yi fi nek yi fi def sama yi ak sama rak yi ñu ngi fi mais ñom ñëpp ñu ngi bëgg dé mais est ce que bo waxee lolou ñom duñ daw lamb ji. suma sayon sax ñu daw. mais est ce que du ray lamb ji. na dé ma mo gën suñu njabot yi dé man sama njabot mo mo gën lamb yi sànku na lamb xawna suma na ko xawna sama njabot pour mu ñi ko mën a defar mooy mbër yi ak li wër làmb ji mais sunu toppee bëgg-bëggu mbër yi ak cachet yi fi nekk euh, coono ji bi ci nekk ñoom ñëpp ci problème rek la ñuy mujj wala lor seen njaboot te nag du ma taxaw pour bëgg lu neex mbër wala bëgg lu neex amateur ma lor njabootu jaamur man dëgg laa leen di wax ku ci dëgër bopp bi ba continuer loo ci góobe gar ko mais man Gaston ku ndobin rey sa maam loo foo gis lu ñuul daw hmm? mais bi ngay bàyyi làmb nga ni da nga 700 millions nga am ci dette mais mooy sa bàyyi bu njëkk ba. non non bu mujj bi mais bi ngay tëggal président de la république nag. boobu président de la république ça n'a rien à voir doon tëgg làmb euh, benn combat rek la woon après cinq ans yoo xam ni tëgguma làmb ñu tëgg ko amul euh, luñ ciy perte parce que nit ñi jàpp nañ ci. boobu benn combat la war sponsor yi jàpp na ci ñu tëgg ko génn ci jàmm. daal pour ñu tëj page boobu mën nañu wax ne Gaston Gaston bàyyi na làmb. Euh, man du ma wax naa dara ndax dama gëm yàlla yàlla mi ma natt woon ba ma dugg ci làmb ba loru ci man na maa nattuwaat ma dugg sax ci la wiyes làmb ba amaat ci dara. ba ba amaat dara. Euh, su fekkee ni ni làmb doxee woon loo xam naa du ma ci am dara mais tey su ma sañoon tey li may ñaan yàlla yàlla na ma yàlla nattoo loo xam ne dama ci am dara. waaw Gaston ñun avant lamb ji sax yoon ñun xamoon nañ la nga nekk Sandaga yor boutique boo xam ne macha allah solukat yëpp fa lañ daan ñëw mën nañu wax ne Afrique sax ñu bari bari nañ ñoo daan solol loolu xam nañ ko te yàgg na mais avant sax lamb ji yow yaa ngi woon ci sport bi yaa ngi woon ci football bi bu buñ ñëwee football tey tudd njàmbur mais am na benn instant nga nekk euh, président njàmbur après ñu jékki-jékki dégg ni Gaston moom kat mi ngi xëc pour jël fauteuil bi nga xam mooy fédération football ñu jékki-jékki nag déggatuñ loolu

Euh, et que nous avons modestie. Je suis venu à la Fédération sénégalaise de football. Je suis venu parce que j'étais président de Niabou. Nous euh, avons l'Assemblée générale, nous avons la Fédération. Je suis venu pendant 5, 4 ans. Je suis président de pendant 5 ans. Je suis venu à la parce que vous faut que mettre en Parce que vous savez que le président est le président de la Fédération, c'est le professionnel de la tous les mois nga fay ay salaire fay ay trucs et tout ça def nako pendant 4 ans réccuwuma moko parce que sama dëkk laa ko defal te Njaambur yag na ci parce que depuis ma ma euh, ma jeunesse fekk presque fekkee na équipe yëpp euh, yiko diriger da na bok ci comité directeur bi et tout ça donc euh, bi ma ko 4 ans ñu réélire ma ma téyewaat ko 1 an ma wo Moussa Diop mi nga xam ne la di sama dom, nek maire de Louga mané ko kay jël équipe bi non la ko joxé Moustapha Diop booba it laa gëj a wax sax waxi njaamur jox ko ko ma ngi liggéey ma ngay def limu man lepp yalla na yalla jappalé bon mu réussir aussi. Ah, jëri mais Gaston dégg na la ma lool nag mako dégg nga ni loy def dang ci waxtaan ak say dom muy muy ci lamb ji muy ci li nga xamni mo doon football bi est ce que li nga waxtaan ak say doom moo tax nga jékki-jékki nag génn ci li nga xam football bi bàyyi ko définitivement pour mën a nag ñu dugg si nag ci li nga xam ne mooy tax mooy ñëw ñu war ci waxtaane muy politique bi waaw xam nga ku dul waxtaan ak sa jaboot sax doo nit parce que man moom ma sama bopp man euh, sama njabootama moom samay soxna samay doom samay sœur samay jarbat man nitu famille la lépp lu may def aussi léeg-léeg sax ma def lo xamni duñ ko yegg mais suñ ko yëgee su leen naqaree dinaa ko xam dinaa ko sentir su leen neexee dinaa ko sentir ci xamna ni milieu sport bi bon football bi mom neexoon na leen lol mais lamb ji wóor na ma ni xamna ni lima ci doon ñak bari na ca man nañ ci loru donc euh, bima ma defee samay analyse ci la bàyyee yooyu yëpp nekk ci sama. muy business bopp voilà. jërëjëf bu ngeen déggee loolu kooku tay suñu invité bi moy ki nga xam moy Gaston bu ñu né Gaston Mbengue xel yépp day dem ci suñu bay bu baax muy nguur euh, gi El Hadj Xaali ci lugo xam ngeen ni bu ñu nee Njàmbur day dëkk bo xamanteni ni si dëkk la bo xamni ne mën naa wax ni day xolub Sénégal waaye Père Gaston mu Gaston ci politique Gaston ci président Macky Sall ban relation ngeen am ba tax nga jóg ni damay jàppale le président Macky Sall. bon le président Macky Sall euh, depuis 2008 la ko commencé jàppale avant boobu aussi euh, mi ngi woon ci biir gouvernement nekkoon ci PDS amuñu woon sax yooyu relation mais Sénégal ku fi nekk ñëpp benn lañu parce que sunu doom yi ñooy sëy ëllëg ci dañ ci mën dara.

Nous nekk fa tout le temps on était j'étais là-bas ñuy waxtaan kër bu may maison sama doom sama kër la yendu ñëw eh, ma gis muy nit ku aussi nit ku posé ku eh, xam nga soo xamul soo xamul sa waay im koy ñu bëri xamuñu le président Macky Sall et puis Sénégal aussi dañu bis boo faloo rek bari soo tant que yaa ngi ci opposition nit ñi mën a laa bëgg ak ñii di la bëgg bëgglu mais soo faree soo fa soo faloo bari noonu man nag foofu keroog bi muy bi muy monte parti am malgré bokkuma ci parti bi biir kaw teraanga keroog maa moom ñoo taxaw ci kaw taabal ji muy yéegee maa yéeg ci ko taabal ji pour parce que man xaw ma lu ñuy xaw ma nëbbatu su may bokk ci dara dama ci bokk fës ci

non seulement bokkoon nga parti socialiste loolu ñëpp xam nañ ko ba pare deuxièmement yow nga ni xam nga la président Macky Sall 2008 mais est-ce que sa combat yi nga tëgg yëpp mas nga am benn drapeau boo tuddoon président Macky Sall. man mosuma tuddee kenn drapeau man du ma tuddee ni drapeau à part El Hadj Mansour Mbaye mosuma tuddee ni drapeau du ma tuddee ni drapeau yooyu loolu xëy na gars yi koy def man du ma def loolu man euh, El kenn laa doon tuddee drapeau ñaar du ak Ousmane Tanor Dieng. kooku sama mag la bëgg sama sœur et tout ça ci looloo taxoon. ci parti boobu non parti boobu ci la juddo nekkuma jë. ndax mosuma jë mais fala juddo par parce sama papa mo samp parti boobu moo sangor ci sulu kër lañu sampee parti boobu ci Louga mu nekkoon ci Abdou djouf ñëw di sama mbokk di sama cousin ñun ñëpp ñu jappalé su woté joté mom la ñuy woteel ñun mu nekk une famille mu jël sama sœur liggéey ak mom bir présidence génn mujj def ko ministre pendant presque 10 ans kokou il faut dañ koy jappalé et puis PS lañu xamone ñun fa lañu juddo mais quant comme nii nit ñi def di wax ñu ngay meeting ñu ngay politique comme politique bi ngay gis légui rek man euh, cette politique là fekkee ne loolay bokk ci parti man mu bok ci parti hmm. motax tax du ma ko nëbb tey nit ñi dañuy taxaw melni ku bok APR ca bokkuñu ci sax di ko di pour nax nit ñi ay dóor ay forme d'or man yooyu duma ko def man bokkuma affaire mais Macky Sall mooy sama président mooy sama rak moom lay jàppale pour Sénégal jëm ci kanam. yow bokkuloo APR bokkuloo benn benn bennoo bokk yaakaar président Macky Sall mooy sa xarit moom ngay jàppale parce que mooy président de la république mais léegi mu yow en tant que doomi Louga lan nga ko mën a jàppale biir Louga. mais lu ñu koy jàppale biir Louga déjà sama sama rakk nga koy jàppale muy Aminata Mbengue déjà Louga. kenn mënu faa def dara ca boole wu ma ci ndax nag juddu naa fa màgge fa mais itam nag gàcce ngalaama Louga su ma heure bu ma neexee wàcc fa laatet wut xam naa ni fu campagne jotee danaa dem Louga toog fa di di liggéey pour ñu woteel la président Macky Sall fa laay wotee aussi mais loolu pour nga def ko nag d'abord di nga di nga politique xanaa. bu fekkee ni yow tey bëggoo nekk maire Louga. amul benn post boo xam ne yaakaar nga ni la président war na la ko mën a delloowaat Louga kon nan nga ko mën a jàppale à Louga. Serigne Sarr koy jàppale ci politique nu Serigne ñu ngi koy jàppale ci politique nu politique c'est pas ba ngay jàppale da ngay politique rek ci nga mën a jàppale nit. man samay relation rek mën naa ak sama sama nu mu tuddati euh, cri du cœur joxe consigne war naa mën a tax ñu jàppale Macky Sall j'étais président de, de, du club de Louga yooyu yëpp euh, dama am dama am aussi euh, nous koy waxati amna tour amna sama parce que bugguma sax di wax ci man parce que euh, bugguma manquer toute modestie je vais être trop modeste bugguma ci wax ci man mais limay may jàppale xam ko tey man nay dem sax mom tourner ma and ci tournée bi nek ci région yi parce que nag kenn gënumaa siiw ci Sénégal ken ak politiciens bo manti doon kenn gënuma siiw fu ma wacc dëkk bo manti wacc ci Sénégal ñu xamni Gaston ñew na Gaston kii la àndal dëkk bu ma wacc da ñu xamni Gaston ñew na bon le président euh, dama koy jappalé mais wutuma ci mom ben poste mais sama nijaay Gaston troisième mandat bi nak waaw mais troisième mandat kuko wax ak constitution bi euh, troisième mandat kuko wax xam nga nit ñi rek ñoy wax ñoy wax rek mag euh, le président Macky Sall nee na leen ne leen liggéey ca bàyyi wax troisième mandat nit ñi ci kon wax rek mais président Macky Sall néewul kenn damay troisième mandat damay quatrième mandat damay cinquième mandat mais ñun ñoo bëgg wax ñun sénégalais ñoo tam wax lu tay sénégalais tay so doon taal sa biir kër sa añ sax añ ba tuuru ñu ni président Macky Sall ko tour ci duggu ci kër ga que sénégalais ñoo ñoo tàmm diingat ils ne sont pas généreux mais troisième mandat quel waxu nan xaar ba ba mais a ñu troisième mandat bi ci APR président Macky ñu wax ñaar ba ñu leen. troisième mandat bi. parce que dafa leen dafa taxaw ni nañ wax ji day am discipline de parti nañ leen bayyi wax ji te euh, liggéey mm-hmm. ñoña ba ñu ni dañ leena a xam nga ku melni Kaba décision di génn non mais parce que sénégalais ñoo ñoo négatif. duñu beaucoup de... dañuy on préfère que naafeq di fekk mu président Macky Sall le troisième mandat mais si so woné une indiscipline de parti. kooku nag su neexee parti bi ñu tax la. mais parti bi actuellement nii yëngu na de te ñu bari ñi am na ñoo xam ne ñu ngi wax ci troisième mandat bi. mais ñi koy yëngal. te ñooñu ñu ngi ci président Macky Sall. mais ñi koy yëngal mooy ñu soxor ñi rek. xam nga xam nga médiocre. médiocre du bëgg ku baax. le président Macky Sall du APR moomu ko kenn moomu ko président Macky Sall Sénégal ko moom. parti yëpp a ko moom parce que mooy président de la république bu parti yëpp mais ñi mu nekkal. su fekkee ni daf ci am ay médiocre am ci quelque yu baax ku mel ni par exemple Boun Abdallah Dionne ku mel ni Amadou Ba ku mel ni par exemple même euh, ablaye Daouda Diallo ou Omar Youm ñooñu genre yooyu. Mimi Touré. Euh, oui Mimi Touré sax su la neexee genre yooyu euh, tey dañuy gêner les médiocres dañuy gêner les médiocres moo tax médiocres yi.

ban ko gëj a gis sax kenn xamul ay trafic d'influence la ñuy def c'est tout mais xam nga ni président Macky Sall euh, mënula jël réew mi fekk ñu baax ñi ko wër ay médiocre di ko tàqale ñooñu mais nag am na teey ak kuulu boppam bu kul xam ni fi mu jëm xam na ko moom liggéey lañ ko sant mi ngi liggéey li ci des nag euh, man nañu yuuxu xam ak di yëglu parce que ñoom ñëpp ñii xëy na gëj nanoo gis président ñii xëy na nekkatul dara ñoo ay ñu mel ni ay bëy rek ba ñu ni ba ñuy dee nañu yuuxu yow yow gañ ngaa gis président kan ji président président man ma gis ko amul solo ma ñàkk koo gis amul solo parce que man bokkuma ci système bi su ma ko bëggee gis dama koy gis mais xam nga ñi nga xam ni danoo def dañuy toog di mu boobu gis nañu président parce que président kay wax ak moom ak la ngay wax ak moom ak la ngay def ak moom doo da ngay toog ci ay télévision ak ay yu kenn xam du ko wax man nekkuma du ma nit boobu. Sénégal man Sénégal lay jàppale. kooku mooy waxi Gaston Mbengue nee na man le président lay jàppale parce que il est le président de la république. yow donc kon politique loo da ngay jàppale ki nga xam ne moo nekk ci réew mi kon ban relation nga am ak ñi nga xam ne ay kilifa lañu. nekk ci opposant bi te ñooñu ñoo xam le woon ak ñoom tey ku ci mel ne waa kër la président Ablaye Wade ku ci mel ne le président Idriss Seck ak ñoom te ngay nit koo xamante ni tey bu ne Gaston ci Sénégal muy jàppale Sénégal ba relation nga am ak ñooñ ñëpp. jàmm ak yu baax ku ma ci neex dugg sa kër ku ma ci neex waxal ku ma ci neex téléphonante ak ñoom samay nit lañu samay mbokk lañu ay sénégalais man nëbbatuwuma ci fenn dara kenn dara réeruma

ñëpp tiit nee nañ nag tubaab moo ko fi dugal lan ngay wax ci loolu. ak eh, li nga xam ne président jël na ko eh, ak ministre bi nga xam ne moo jiite wàllu santé bi ban xalaat nga ci am ak loo ciy wax. coronavirus bi lëmbaajewul réew mi réew mi yéen ñoo ko lëmbaaje. lu tax. yéen a ko lëmbaaje parce que yéenay fekk lu tuuti. benn kaa ñaari cas yàlla na fi cas yooyu jóge ñu ñaan yàlla ña ko ña mu dal tane mais tey Sénégal lu tuuti moo fi am ñu ni politique bi la wala dirigeant yi la wala Macky la mais corona euh, coronavirus bi mi ngi ci réew yëpp ay centaines et des centaines ñun bërki démb lañ ci am benn cas démb ñu am ci deuxième cas nan au lieu que ñuy wax lëmbalee réew mi nan ñaan yàlla loolu dañ. mais feebar ca même même dixième cas. à Louga nan wa même dixième cas du à Louga Kër Momar Sarr la ci région Louga la.

bu mu tax ngeen di créer loo xam ne day yàq réew mi réew mi ñun ñëpp ko bokk bis bu yàqook ñun ñëpp la yàqul dootu leen wax dootu leen bind donc nañuy wax lu defar réew mi euh, corona euh, coronavirus bi mais paludisme moo ko gën a metti grippe ko gën a metti li muy rey coronavirus reyu ko mais comme tudd nañu tur boobu rek euh, pays yëpp a ngi koy joobe ñu ne ñu ne nan àndandoo mariirandoo di joobe comme ñëpp melni sax ben kaab ak ñaari kaab yi dañ koy yakamti won pour mëna am sujet bu wax c'est pas bien yalla nako fi yalla jële yalla nañu ko yalla téggil mais lolu yalla moo ko feebaru boobu yàllaa ko fi indi yalla na fi yem ñepp ñi mu dal tane mu mu bañ law ci réew mi parce que li ko gën a li gëna met sax du corona bi mais économie bi muy ébranlé mo gëna mo gëna graw parce que tey commerçant yi ñëpp a ngi nii kenn mënut la dem fenn parce que ñëpp tiit nañu donc yooyu yëpp presse bi yéen waxkat yeeg yooyu yéen a ko mën a éradiquer ndax naxanteeg population parce que su ñuy wax journaliste aussi journaliste premier rôle am mooy éduca éducation édu ñoom premier éducateur dina war a éduquer nit ñi ja teg leen ci yoon di waxu leen wax wax joo xam ni euh, duñu tiital kenn duñu

de suñu nijaay aussi muy alaaji gaston mbeng xaali bu louga dégg nga ñuy wax naan événement yi nga xam ni dafa xew ci jamono yi bokk na ci proxaan appel beeg yooyu ñu ne dañ ko war a ndax feebar bi beneen bi ci topp aussi ñuy lay euh, profito di la jaale koo xam ni dégg nañ ni def fi wàññeeku monsieur abdourahmane fall tilaale yan kàddu ngay sànni ci ñaari waaw d' abord pour euh, dàq gi ngay wax ñu dàq ko ay événement religieux man loolu mënuma ci wax duma ci wax parce que nag euh, d'abord dañuy ñaan yàlla euh, coronavirus bi yem fi mais bu nu wootal euh, yaatal coronavirus mel ni tey dañuy yaat danoo bëgg yaatal ni suñu demee ci événement yi mën nañ faa fekk yooyu yëpp sëriñ si kenn gënul leen a responsable xalif généraux yi ñoo nu gën a responsable fukki yoon a juróom ñoo nu gën a bëgg Sénégal gën noo bëgg lu baax ñoom suñ ci gisoon lenn wala ñu am ci benn euh, njàqare kenn du leen wax nan ko nan ko interdire donc man côté boobu mënuma ci dugg man euh, taalibe laa rek aw ma lu may wax ci wax jooju tandis que euh, Cheikh Ablaye Fall Chérif Abdourahmane Fall Tilala yàlla na ko yàlla yërëm dee ko bette mais yàlla na ko yàlla yërëm man sama xarita dama daan dem këram toog ñuy waxtaan mu doon xaritu président Macky Sall ma xam ci dara lu ne defal lu ne defal na ko Macky Sall lu ne nag laa la wax campagne bi otoom la taal dem di ndar partout fu président dem président day ñëw rek fekk ko mu taxaw mu jël parole di wax it jàppale ko ci Zahir jàppale ko ci baatin bëggaloon boppam la président Macky Sall yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla ko yàlla yërëm dund na doon taalibe sëñ Touba gëmul woon lu sëñ Touba yàlla na ko sëñ Touba tertu ci xam naa ne dana ko tertu ndax poroxaan ci yoon wala nekkoon. jërëjëf El euh, Hadj Gaston Mbengue ci loolu rek la ñuy tëjee muy Cheikh Abdourahmane Fall Tilala la euh, ci sama tur ak waa Allo Dakar yëpp ci euh, li nga xam ni mooy kilifa gi. ñi ngi koy jaal àdduna bi yëpp di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na dajeeg yërmande ak Serigne Touba ak Serigne Salim mi mu doon liggéeyal mu doon nit ku baax tey nag ñu ñëw tey ci suñu nijaay moom lañ doon seet si mooy alaaji Gaston Mbengue xam nga bu ñu waxee Gaston wax Gaston Sénégal Gaston la boo xamante ni si maanaam képp koo xam ni bëgg nga lu baax wala fu lu baax nekk rek boo fu ñëwee di nga fa fekk alaaji Gaston Mbengue ci waxam ju rafet ci jëfam ju rafet tey boo ko doon laaj kam sa xarit